li loola am fii njarnde ku mu jaral yow jar nañu tey njarnde loo ko jënde jaral na ma ci njarnde mag fi moo doo defar waa njarnde waa njarnde mooy waa réew mi fii ci Sénégal ak li ko wër Afrique Europe ndax njarnde njarnde ka jar gaa yi di jënd si lu kenn mun la am njëgam mooy njarnde Maodo defar lii loola jagli jamono nañ leen njarnde fan mooy njarnde dëkk la boo xam ne bii Cheikh Sidi Hadj Malick bi mu jugee Ndar foofu la jëkk a jaar njarnde fa la Cheikh Sidi Hadj Malick formé mboolee muqaddami tariqa Cheikh Ahmed Tijani yépp te jaar ci loxoom njarnde googii للتربية مام شخص الحاج مالينا في لنكون تنجارن دي نياري دومم دين تنجان في كان كي من كتود الشيخ أحمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه برم طريق بي كان كي من كتود ويجرب سيدنا عثمان مو إمام عثمان سي mooy maam Demba Bunn mu jur si Seydi Hadji ñaari doom yooyu ña nga foofee ca njarnde fa lañ leen denc. defarale defare Sénégal fii la ko defare fii mooy njarnde defar na fi juróom-ñetti téeméeri góor yi yàlla tasaare wér ci réew mi kon Maodo raw doomi Maodo setu Maodo مخدمي مودورو باتكي مودورو بانفي توغي باتي تغولين فيتولين خانا دي جامي بو ني دي واخ المدرسه المدرسه الصوفيه بو تودي نجارلي دوينا سك بو تبي نجارلي امول سولو مو ملني كيغا خامتاني مو في نيكون دي داف تربيه بو ماك بوبو اك نيم كو دون دافال مو شيخ الحاج مالك جوروم نياري اتام يويو يوينال نتي لو باري باري باري تبارك الله alaji Mansour nee na Maodo ko ànd yawdu yow di ko jege wallahi ma ma ab wallahi ma qaita baba mudu xalan illa fatahta mukhalifa shaytani wallahi ma at yaata umraka bayan بل مشتراك روائج الأديان رديت بك الآيام يا حوي المعارف والفتوح سين مام سمتر نيونغي محرم الرباني يا ملجئي وتروان دنگي دغ ñaankat yi di ñaan xaj ba jëm déwén yal nañ ci yàlla boole xaj ba jëm déwén yal nañ ci yàlla boole sunu ziyaar bi yal na ko yàlla nangu ci barke Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu barke mbokkam mu tedd mam fi fekkoon mu di mam gumba ak lu ñu jaboote mbokk yi de xanaa delloo battu ca ndaala miin nañ ci sëriñ Abdul Aziz Al Amin nee na fii la Seydi El malik Malick dafare juróom ñetti téeméeri muqaddam tasaare leen ci àddina bi nee na kenn ci demul màkka sañ ci dëkk bënn teen kenn kooku nee na bu ñu daan ñaan naan na ma ñaan gi dab waye 799 yépp ku ci ne sanci nga dëkk tabax juma joxe ji sa farata ziyare yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon duma ni fi la dafare Sénégal du Afrique adina bi yépp fi la len dafare mom Seydil hajj malik hajj Mansour pak baangi fi la mawdo dafare mag ñi fii la defarale defare Sénégal fii la ko defare fii mooy njaarnde defar na fi juróom-ñetti téeméeri góori yàlla tasaare wér ci réew ci mi kon Maodo raw njaarnde daal képp koo xam ni kii sëtu na ci Seydi Hadji Malick yaa xam muy góor yaa xam muy jigéen ñoom ñëpp kenn ku ne la doon seen yitte moom ñëpp mooy njaarnde ña nga xam ni ñi nga bàyyi ko ci Youssoufa Diop ña nga woon njaarnde ñi nga xam ni nga bàyyi ci góor gi Abdou Hamid Kane ña nga woon njaarnde ngeen xale yi ñoom ñëpp muy Mansour Kane mobilisé na waa Kaolack yëpp ñu àndandoo ñëw ñoom muy muy góor Yuusufa Diop mobilisé na waa Fass ak waa Tiwaawan ñoom ñëpp ñu ñëw Njarnde kon nag Njarnde dëkk la boo xam ne bii dëkk bu yàgg yàgg yàgg yàgg la ca jamono yi Cheikh Seydi Hadji Malick Njarnde ci boppam la góor gi jógee Ndar ñëw fekk fa kenn dañ ko faa fekk ñu bare dañ ko faa fekk moom Njarnde googu dëkk la boo xam ne bii boo déparé Tiwaawan da ngay dem ba Ngaay boo demee ba Ngaay nga jàdd dem ba ba ba pekkees boo dee ba pekkees nga jàdd jëm njarnde boo taxawee pekkees sax foo taxaw ni ana njarnde ñun la njarnde ngi nii gis ngeen ñu ngi noonu julli nañ fa juma imaam ba fa la dëkk mooy euh, waa kër euh, maam guma amar yooyu nga xam ne ñoom it Cheikh rek dañu gëm fa tabarakallahu mooy seen wasila seen maam boo gëggu guma amar cosaanam foofu la ña ca ñu ci ëpp ci njabootam ña foofu ca dëkk ba imam bi sëtam moo doon jiite noonu moo jiite jumaa ji moo doon julli noonu lii daal nga xam ni moom lañ leen jëlaloon njarnde kon nag mbokk yi ngeen seetaan njarnde noonu TV bu Tiwaawan ñi Seydil Hadji ñi defaroo ci Seydil Hadji Malick yal na leen ci yàlla boole. ñi ngi kontaan ci télévision Tiwaawan Tiwaawan teew na laa ko tuddee Tiwaawan feeñ na Tiwaawan feeñ na laa ko tuddee ndax la Seydi Aboubacar waxoon ci Seexna Tijaan Sërif ni woon ni talaat la Shamsul Uda waaye waaye Tiwaawan fenk na te mooy télévision bi yàlla na ci yàlla def tawfiqul ilaahi la maam Cheikh El Hadji waxoon ni dama bëgg ku ma lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nëbbal ma sama jëmm nëbbal ma sama njaboot loolu la télévision bi di wane tey